wanoo ma dara de yow danga maa tegal rek ma ne ma demal alors ok ah kon yow mënoo lire. wala wala mën nga. moom nee na commande bi commande yi nga joxoon. yi nga jëloon quoi. kii client la. kii que client la. ah mais dafa mel dafa bëgg nga joxaat ko yeneen de. non kii amee na ma xaalis soo fee balaa woon andi quoi. mooy bi ma wooyee. mooy gàm bi quoi. waaw ñoo ngi koy a moom. waaw kii moom maa ngi koy doog a teg de. non yow moom Dream Cosmétique da laa war a woo sargal parce que gamme bi mais y am na diw. am hmm? na gel. ah kii quoi. pour barbe yeeg. Hmm, xaw Sénégal ñoo bëgg sikkim yu gudd noonu xam nga. Hmm, am na diw boo xamante ne sax moom gay def kii quoi. waaw affairage moom ngay sax doom picc ak yooyu quoi. moo nekk nii picc ñi ba ñëwee la picc <laughs> ci am na am sax kii bi au fraîche waaw waaw ah, c'est euh, sama yaay nag expliqué na ma. Euh, li ngay def ni man dama koy rafetlu gis naa ni yaa ngi góorgóorlu bàyyi nga ci li nga nekkoon. Mm-hmm. loolu am solo yow fan nga dëkk sax réellement. maa ngi dëkk fii si ginnaaw. Kër Kaw. Kër foofu nga dëkk ak sa famille quoi wala. non man waaw man kese maa fa dëkk maa fa benn néeg rek. benn néeg quoi. Mhm. mais yaa ngi góorgóorlu rek bañ a def yenn détails yeeg yooyu quoi. man su ma liggéeyee ba samedi. damay jaar nii dem Fisal Mbadaan foofu sama kii nekk quoi suñu famille. seen famille fan la ne. Fisal Mbadaan Fisal. Ah. foofu laay dem chaque weekend mais am nga soxna. non soxna moom amaguma fi amaguma ko. bàcc moom a yàqaloon rek mais kër gi sama xel fi la nekkoon mais bàcc ñëw jël booy bi <laughs> lu ma si mën. nga ne lu tax amoo jabar. non wax soxla amaguma ko xam nga temps yi affaire yi yooyu moo taxoon mais léegi boo bàyyi lépp moom na ko. xam nga mm. bàcc du dara bàcc tey fu dugg bàcc am na six jabar yoo xam ne ñëpp problème yu mel mais yow xam nga bi nga fi mujjee ñëw nga fi andi pour bàcc. waaw boo doon takk tey jii ñaata ngay jox sa première euh, sa jabar première cadeau quoi. ah mais xam nga ñii ñoom maa ngi liggéey ak ñoom. waaw te su ma woon takk jabar ñoom ñoo def lépp. waaw loolu leen koy wax rek ñoom lu ñu ma jox rek mu indi ko du ma kal du ma yii du ma wax ñaata. <laughs> nag liggéey la yow yow takk ko ah. ah da ngay dajale ah takk ko waaw booy dajale yaa ngi dajale kay léegi ñii laay liggéeyal mooy la. ah mais ñooñu may fay ñu duñu amee kenn xaalis. waaw ah, booy jaay dara nag da nga ko war a xam. waaw parce que dégg naa da nga ñëw rek ni ma gàmbaa ngi nii ak. waaw fii lan lañ fi bind lii ci suuf. waaye sànq yow maa la sànq lii ma message nga may laaj lu ñu bind fii moo toroxal nit. waaye léegi booy booy jaay nit ci mbedd mi mun la. lii nga lii laa la lii lii pour dindi picc la boo wootoo ba pare. Ah, mi ngi nii waaw ah, ok waaw. non bul waane bul bul diw. nga jël rasoir bi xoos ndànk mu dem. Hmm, ah, ok léegi bii nag bii lan la bii. bii moom bii moom ah. bii ku sangu booy sangu nga si nga si laalaale laa ko sa yaram boo boo sangoo pare bii. Hmm. boo sangoo pare laa ko sa poqutaan pour bañ a xet. lan lan fraîche. Euh, déodorant fraise. déodorant. lii loolu du day defal naa. bii pour sangu la. bul gaawantu sëñ bi defal naa kii. mais yow li may laaj ñii. <laughs> waaw xam naa ko. mais comment bii mu la pour nit ñu xeeñ ñi. poqtaanu xeeñ. non non non non non du nit ku xeeñ du pour loolu. ah non defal naa ñi ngay jaay baaxul. ma lay expliqué dama la bëgg a jàppale. mu nga man dama newoon commercial. liggéey bi ngay def nii. non non defal naa waaw léegi xoolal. lii eau fraîche Colnès la. eau fraîche. Colnès Colnès. yaa ngi dégg ah. bii ah au fresh coolness bi. waaw comme ni nga wax ñaari wax coolness coolness. mais en anglais da nga naan coolness. ok d' accord xam nga anglais bi day xaw a diis ci yow ah léegi lii boo sankoo ba pare. Mhm. bu la neexee def sa yaram. doo am tàngoor. <laughs> ba tey xeeñ gi foofu la dugg de. Hmm? ba tey doo dund xeeñ gi de. non bàyyi non mën ngaa bañ a xeeñ mais pour nga bañ a am tàngoor sa yaram. maanaam yow ngay toog di nekk à l'aise. waaw waaw waaw ba tey bañ bañ nga xeeñ gi si la bokk de. saa mu ne ma tey mënoo dindi bañ ko bañ a xeeñ booy jaay nit aussi naan ko booy bañ a xeeñ jiwóol li mën naa mer bañ a jënd ah waaw waaw li ma la wax ni tamit xam nga Sénégal li ma suñu problème doo fi wax dëgg parce que man mi ngay jaay mais tamit sedd baa ngi ñëw weex weex gi da ko suñu boole bañ a weex gi waaw bañ a weex ak jiddi mi waaw bañ a weex gi ak ak jiddi mi ak kii waaw baax na yi ko yi moom xanaa yi nga gën a xam waaw non yëpp ma maîtriser lépp yëpp saabu baa ngi nii waaw saabu kay xam naa ne xam nga ko saabu kay moom ah, ah, saabu moom xam naa ne ah, am na luñ bind fii de waaye kon wala liroo message bi dugalal noonu hmm. maa ngi dem mais jàppale bi moom. waaw ah, baax na léegi ah bi xam nga kooku laa jógoo ko de. ñaata la. trente mille. trente kii day day bàyyi day seen i prix ñëpp xam nañ ko ku baax. waaw ci daal boobu mën naa la ca tegal téeméer ci six mille yi muy six mille cinq cent six mille lañ koy jaay. wala non non léegi baa ma teg ci deux mille. ak man sama nit nga muy huit mille. non non teg teg cinq cent huit mille cinq cent chaque jour na ëpp. mais c'est sûr que ni xaalis bi nga dajale pour takk jabar waaye pour takk jabar rek la. Hmm? pour takk jabar fii ceeb desu fi. ah waaw ceeb am na ci léegi naa la jox dix mille ah. par orange money ah non orange money laa la ko yónnee. Ah, mooy numéro bi ma woowee léegi. waaw ah, ñu dem nga nga lekk ah. portable toj na de. Hmm? Hmm, portable toj na buubi dafa doxana buubi ficelle Tamba suñu dëkk fu mooy fànn ficelle Tamba. mën nañoo sàcc bi fa am xol li ñuy ruuma nag ci kër gi di ko waxtaane fu ne xarit di ko mbee ginaar di ko sab yëg naa ko te yaakaar na yow mi yëng ko ndax dara du umpi ci kër gi. Ah non man nag léegi xam naa léegi bëgg ma yanu samay dàll dem ci mbedd mais problème bon bi c'est réglé li ngeen foog amul encore une fois c'est ma fii dama ko xool comme aw ak xadi. mais mais lan la. papa xanaa balaa nga kër jëm ñu ah. waxul wax bon. yi lan la waxul waxu bon déglu ko. ceeb moom moom. waxuñu yow ak bon bi déglu li muy wax. xanaa balaa ngaa fil gémmiñ Samba xam nu mu walis man li may wax ma gën a ñor jànq bi jànq bi yow la ñor du man. Ah, Amina mii sama deret la man la gën a bokkal. Ah. waaye nag dafa def jëf joo xam ne ñu koy waxtaanee ci kër gi mu toj àddina ndax dara du fi umpe. mel ni mii mi nga takkali woon boobu. ndekke li mu toog fii ne day sëy ak buule daa am jëkkër ca France màggatum tubaab ma amina mu feebar ba ne ci diggante dund ak mu teg ko fa daw ñëw fi waaye lépp yow lu ma dal yaa ko teg ci àddina yow nag looy def doo def say investigation doo xool doo déglu sa yoon ci yow moom tànk yaa ngi ciy tiré profit xaalis a nga ca rek da ngay fërfëri noo ko amee baax na tey jii bu yóbbuween sama doom ji feebar ndax fu tey ji fu ma jëm ci àddina feebar bu ne am ci dëkk bi lu xew fi waaye ndokk yàlla ba nga xam ne dara wax ji nag lu ko guddal la ko gàttal sëy bi ci boppam ngay tas. Eh, non arrête arrête ah. bu fa dugg. non non non li ko takk tasu ko. non non dafa ndànk yéen fan ngeen jëlee donc information yooyu est-ce que lii ngeen di wax c'est vérifié. est-ce que c'est vrai. tout le monde en parle. non mais tout le monde en parle taxul mu nekk dëgg. dafa ndànk d'accord d'accord. Ah. nangul naa la lool. waaw nangul naa la ko. waaw mais en fait erreur bi mooy man Amina personnellement. Ah. man awuma fitu sekk ak moom dara. ndax wax yi. oui kon nga ñàkk fayda. papa du ñàkk fayda sama takk sama sëy wóor na ma mais sëy bee am na amul wóoruma. Ah, mais je pense que loolu dañ ko war a lijjanti ba mu leer. voilà yaa ngi soog dañ ko war a lijjanti ba mu leer. Ah, mais le temps que muy leer nag. lu ma sekk ak moom maa ko tey. non non non mais attends na intellectuel la mag la. doful jinne jàpp ko. Ah, et puis non déglu man même man man man ba ma defee erreur papaam mais ma woon yaa ngi dégg bokk ak yow. yéen ñaar yéen mun yéen ñaar papa xam nga ni papaay Amina mënalul dara Amina xamul ko dara. loolu yaa ma xam. non mais papaam du def. ami papa. yéen ñaar yéen kenn sama nijaay ci xamul dara moom jege na ko moom doomam ah. am ñoo xam te duñu réagir non non sama nijaay fii fii la ma fekk donc bugguma dugg ci détail yooyu quoi non loolu ay wax la woon c'est passé jarul fàtt fàttaliku day indiwaat ay xeex jarul fàttaliku yooyu day tax xol yi jógaat jaas yi génnaat jaru ko nga li ma la te man non man li may man li may ña man dama ni bu leen ma fi indi benn man léegi ma dof de sama problème bii ma jógee rek yaa ci ci ci binom déjà euh, mu xamal ne mu am lu ma confié ma bëgg cee dox bëgguma benn coow ci kër gi wala dara bu leen ma nit problème quand même n'est-ce pas waaw mais loolu non def leen daal yéen loolu ngeen wax waaw non c'est sérieux bàyyi leen man ma def investigation bu ma leere ma tas ko dafa demee si aussi ñu ngi demee. waaw ah, mais lii bu amee ma jaaxal. waaw d'accord mën na nekk dëgg ko a nekk dëgg mais en tout cas. ko gëstu yàqkat yi dañ fay nekk attention. non am na ñu dama ni non wax lépp baaxul. non wax dama ni ah, nañu nañu wax a jot na nag. xale yu jigéen yi ko soxla woon moom mii taxoon positionné bari na bi Amina duggee man ñi ngi may sànni daraak ñooñu mën nañu indi information bi. waaw waaye ay dof. fii ba États-Unis lu fa xew à la seconde qui suit ñëpp yëg ko. ma ñu jàmm mais ñi position bare na man su. donc quand même mon xam naa non xam naa lépp. xam naa lépp man sànni nañ may track ci mbedd mi ñi bëggoon bare na am na ñu taxoon espérer biñ déggee ni takkal naa la bind nañ sa ay message saagam sànni nañ ko ci buntu kër gi yow la bind nañ ci kayit saagama fii yaa ñu yaa ñu traire yaa ñu xañ suñu ñu mel ni da nga leen takk donc ñooñu mën nañ indi information donc bàyyi leen ma def investigation si c'est vrai ñu tas ko. yooyu yëpp waxuma ko tas ko point. bu dee jël tëb tas ko quand même. bu ah, yaa tëboon tas ko. waaw li nga tëb tas ko. ah non non man bu ma jógee à part d'aujourd'hui dinaa def émission. mais coow moom ci kër gi. dimbali leen ma rek surtout ngeen teel ma um voilà voilà c'est ça. waaw ñu ci sànni naan ma ay umu ak ay yaa tal umu taluma ko man lii may wax laa tal ah, taluma ko yaa ko tal. Ah, dimbali leen ma. dama ne kuy wër ku am fit ba dugg ci biir kër gi soo jàppee Amina moom jaratul ngay dem fenn xale bi am na fit engage na capable na ñeme na wow na bët. mais restres la de waxoon naa leen ko. ba pare li ma ci teg nag nee na daf ñoo convoqué man ak yow ak cousine pour la ah daf ñuy taaj taaj tey ah day raxas nee na day raxas boppam day madaar boppam daal nee na moom fekk ni ñu koy waay ah ah nañ bàyyi mu sedd rek nañ bàyyi mu sedd. gënul waaw su doon sa wujj yow ni nga bàyyi mu sedd nga topp kaa ba ci miirus bi te sa wujj na moo tax nga ne nañ bàyyi mu sedd kii su doon man ñii Ndeye Ndiaye kon man maay raw fàttee ci dëkk bi kon rajo bu ne yóbbu na ma fa comme que nag tey bii pa ma appauvement moo fi def lu ne weng dama koy weer xam nga ne Amina yow maa moom demewuñ neen dëgg yàlla am jëkkër moom may wax nga teg ci beneen jëkkër. moom daa avoué sax ba nga dégg yow nga am say say preuve enregistrement waaw léegi nee daf ñuy woo man ak yow taaj ñu taaj cousine bi léegi xam naa teg na dil ak cousine bi ba cousine am ne bu ñëwee nañ ko tëgg raas tëggal ko kii dañ koy gi mu tal kay de ce fait ñoom ñaar ñëpp ñu jël seen fit nga xam ne kër gi sax dootuñu fi taxawaan yow noppi nañ ko tëggal mu dem rek moom moom nañ ñibbi rek ak Amina Amina ñëpp ñu ñibbi yow loolu bëgg nga ci lu leer naañ waaw tegal loolu sama loxo dañ ñaay sa xeetu bandi na génn ndey sa xeetu vulgaire na génn ndey sa xeetu yow loo dencoon ci ay arme rek ci affaire u ah, defante na génn sax la nga ma nag <laughs> ah baatu pare nga jëlaat mm. rasoir bi ah amatoo lu ñu wat ah waaw ma bàyyi sagal la lii nag sagal xanaa ma jéem a coupe ba ko <laughs> mm. ko di a ah, jàpp si jàpp sama sax wag lépp ba may jël di la <laughs> dimbali ma rek gën a gën a doom ay boo ma ko daggee nu may defal dimbali ma ci yow laa wéeru nag de. yow noppil ba kii ñëw. lii lay sama arme. dama koy sëfal mu dem. Eh, doole man naa xeex garaaw na ne tudd man dinaa raak <laughs> dinaa raak incha allahu <laughs> soxla na nag. ku may wooni allo. waa Néné Tuuti. maa ngi nii de namm naa la xanaa di ma seet si nag sama fii nga ma indi pour lan la. a ah, fi ma la indi kat maa yee indi la fi. lu xew waa Xalifa ba yow li ma dégg nii dëgg la wala du dëgg. ay asuloo kër gi. Ah, li ma dégg ci biir kër gi. waaye nag daf am mbetteel la ci man de. ah ma nga firi ma lii lan ah, xaw ma ko de wax yàlla xaw ko nag. ah yow la nag. man mi yow de la lu ma def. ah li nga def de xaj yow li def xamoo ma xamoon li def naa taxaw fi naa li def lan laa def ay at ci ginnaaw amoo dara dara looy fàttaliku ay at ci ginnaaw yow fàttalikoo dara non hmm. non ay waay sa doom yii nga jur jëm sànni ko jalax ko pour lan la xadi baaba ay xadi baaba kan moo jurati baaba jamono ji ni mel doo jur xamoo doom ji lay jariñ tëju ma tëju ma yow xadi baaba lii nun nga ko attani yow nan ngay amee doom ci mbedd mi xadi baaba sànni ko fa ba nit di ma dab naan ma waxala xadi baaba nee ko na ñëw lijjanti doomam ji mu jël sànni ko yow loolu war na la xadi baaba loolu war na la doom ak ni mu neexee ci xol ni doom mel ci xol xadi baaba nga jur di sànni kan moo jurati sànni lii nag ñaaw na yaas foo yëgee kebe laa taseel mu wax ma ko ne ma xadi baaba daa am doom doom jala jël abandonné ko nekkoon a na ñëw lijjanti doomam ji moo gën mu jël ko jala ko sànni ko te ko fa de loolu war na lii nag pour mu gaaw mu bañ a am wax wax ji gaaw a suulu wool ba nga wax ko ko nga dem jëli sa doom jee walla nga dem di ko toppatoo hmm, sinon rek hmm, dama lay wax sa biir privé dama ko mës a ti teg ko ci ci biti. waaw man kan ma am vie booy ñoqat di ko teg ci biti. xam nga yow loo ma xamal rek xamal naa la lu ko raw. waaye wax ko. waaye duma ko wax. wax ko. lenn nag naa la ko xamal. gis nga sama am doom ak sama ñàkk am doom sa yoon nekku ci sama yoon a ngi ci sama biir privé la laaj lay la laa sama yoon a ngi ci ndax xadi baaba da nga mës a wax ne sama xarit nga loolu nga mës a bàkkoo xaritoog man xaritoog man ba ñëw ñu bokk jëkkër xaritoo bi gën a dëgër kon xadi baaba boo amee doom ci mbedd mi ma yëg ko dinaa ko lijjanti lii nag wax ko ba wala ma woote réunion wax ko ci ëtt bi yaay choisir waxuma ko kenn sama biir privé la sa yoon nekku vie privé vie privé dafay am xadi baaba wa xadi ba xadi baaba moom la moo tax moom mu sadik moom ah waaw waaw waaw baax na réunion laa lay woo bañ nga ko fii table jàngoo ne laa lay yóbbu nañ la. sëñ xool. Hmm. la la waxoon maa ngi ci de. Hmm. de jóge wu ma ci. ah ce que xale bi dafa ñor trop. mënuñu koo bàyyi ci biir kër gi muy hmm. daagu noonu rek. kenn du ko jël. waaw am na nag ñu naan doomi jàmbur laak man lañ ko dénk ak maay ndijaay maay def lii maay tuteur dem naa ci tontoo Tafa. Ah. ah waaw. Ah. waxtaan ak moom ba pare. ah <laughs> wax ko sama mbébét. kon kay alhamdulilah ndax mënoon na ci biir kër. waaw yor ñeent. foqale foqale. Hmm. keneen nga teg si bët. foqale sarak na si biir kër amul soxla amul dara nga ne ko mu ko du ko takk xam nga yenn yi soxor la. lépp kenn yenn yi bon la yenn yi iñaan la. lépp kenn mënu koo wax lépp kenn mënu koo wax. Eh, waaw. Eh. te suñu waxee nga ne wéy nga toog di xoolee. Hmm, man man motuma gaaruwaale. Eh, kii ma soxoree dama ne amul kii bu ma soxoree man maa tey. yow kenn gaaru waaw la non xale bi dafay dugal boppam gaaruwaale dama ne ku ko indi ci kër gi gaaruwaale maa ko indi ci kër gi te doomi jàmbur la waaw yaa ngi dégg du ma xool kenn di ko pasar pasaree yow yow kii daa amul mu yore kenn euh, euh, ah euh. da nga man dama ne xale bi daal muy tey muy ëllëg du ma mu naan ba ko ci kër gi muy daago xale bi daal dugal boppam ci kër gi yaa la te kii lu muy yore kenn yow kii yow da ngaa yëg xew hmm. kii bu diggam bi daanu banque nga koy wër daa yorati dërëm ñaar dërëm waaw ah. bi bi nekkoon yow yaa war a yemale sa faqale jigéen gi nga nekkee ah da ma rek bi yaa ko yaa gën a kii xale bi wax nga ma ko yaa gën a bëgg xale bi kii wax nga ma ko ma ko wax ma ko waaw la waaw ma ko wax ah, ma yow def nga say démarche dinaa la ko may incha allah ci farata yàlla ak sunna sama yow nag li nga bëgg moom rek mënoo ñeenti jabar la ma la daal maa nga ca lañu waxtaane woon fii maa ngi maa nga ca man waxuma kii kii dafa ñàkk jom ah. torop torop torop xale bu ah. ndaw ne ci biir kër xonk cooy nga war koo mën a jël jox ko ah. sa rak mm. nga ni yéen a koy juróomee la yow yaa bon yow ba yow yaa bon yow ay jam yow xanaa say jeeg yow doyul yow amul benn ba yow li nga xam yow may ma rek yow li nga xam lan la yow yow eh. yow li nga xam yow wuyu ma da nga daanu da nga daanu dama lan bëti garaarangu waaw joo bàyyi kii ay waxam yow kii xalangu dama ne nag kii doo ko bàyyi ay waxam kii nag xam nga kii ah? fii jamono jii fi toll nii nii fii jamono fii jamono tem toll tembe nii kii xuloog moom arrangé wu ma danañ xuloo de déedéet déedéet arrangé wu ma arrangé maa ngi yow c'est fini arrangé wu ma billaay dinañ def ku ne sëriñ du bàyyi déedéet maa ngi yow c'est fini déedéet man sama papa gaañ na bu yàgg amul dëdd waaw laay lay la bana xol lu tax tok yaa ak ça va papa na ngeen def waaw ça va ça va chéri koko <laughs> yaa ngi ci jàmm yow lay yow la jàkkaarloo yow lay wax. Eh, eh, xam nga lan laa la bëgg gis nga nag. sa ñi yar leen. Ah. Eh, fët see nga laa ma ay seeri xool du ma sa morom de. da xool déglu du ma sa morom rek man sa morom yi bàyyi laa. boo toogatee fi naa may seeri kooku dinañ jëflante de. waaw waaw dégg li ma la wax rek. yow dégg li ma la wax rek. yow réew nga torop kii na nga ko yar ah. dama lay wax na nga ko ah. man du ma seen morom nag. bu demee. ba fekk la jotaay wax la lii am na fu mu ko wéer. fan la ko weer. fan la ko weer. fan la ko weer ah, <laughs> sa doom nga war a yar nag. sa doom nga war a yar. dama ni séeri fu mu yow koko. déedéet dama la koy laaj fu mu jógee. xam nga fu séeri koko jote. Ah? xale bu reew bu ko neexee dox lu ko neex. man la laaj man na oh. laaj man. ma ni ma li nga war a mooy sa yëf yi dellu dëgër ni koko nga war a lijjanti koko loolu yow yaa gën a bon kii yéen ñaara yam kon yow kon kon ñu les trois mauvais pas dans le vent. ah bon mooy ñun ñett rek. nii di doxaan xale bi kii nga la ko bëgg a doxaan. yoroo loo takke. daanu nga yoroo loo takke. xale bu ndaw nañ si lay yow est-ce man ngay wax loolu. waxuma ak yow waxuma ak yow. billaay xuloon nañu ma. Ah, ah, dama la xuloon ma yow su yow kii man moom ñooy doxal toog daa yàgg gis nga yow mosunoo xaritoo mosunoo xaritoo liggéey loo nga ma kii ba taay jox ma ay xaalis pour ma liggéey kii mu dee yow moom mi kii waroon na dee bu yàgg kon yow yaa war a dee yow mi yaa war a dee yow mi ménopause yaa war a dee amoo doom amoo jabar amoo dinaa la dolli dinaa la dolli nga liggéey bokkuma bon yow yow mi yaa xam ku la dama dama naag dama naag non kii sax waxuñu mën a waxuma la waxuma say wax jooju moom mi kay laay waxal waaw yow yow lañ fi ñëw wax koko nekkati kii la doon wax liggéey nga may liggéey di ci teg. waxuma la xuloo du ñaaw la ñu jotee bay xeex. la ñu xanaa koy yow yaa bon yow. koy xeex yow yaa a bon yaa gën a bon kii. fii baaxul man ñeewuma la dinaa gis xale bi ni ko dangaa feebar feebari góor yow ñeewuma la parce que yow sa jabar moo la yor yow waaw yow ñi ma dugg alhamdulilah rabbil alamin ñi ma woo dugg sa kër am naa jabar ñi ma woo dugg sa kër am naa jabar saa soo duggee ñu duma la man su ma dee dinañ ma ténj waaye soo dee ku lay ténj waaw kenn léegi problème bi xam nga la lan la yow man daal maa ngi yow si fini pas chocolat waaw ok kii mooy lool ko waxuma loolu xale koo jël rek le message que voici. gis nga sama cousine bi ma leen sonalee ci biir kër gi naan leen dama am cousine bu baax bu may soutenir heure bu ma amee problème gis ko su ma amee bànneex gis ko mi ngi nii ku ma ngi nii kum sama waa kër yaa ngi nii sama wujj baa ngi nii fàtki néegi nii ndaya ngi nii gis nga na mm. noonu la xol bi rafetee lu la réer nag suba ba ngoon jot ci man boo ko seetee ci moom gis ko moo ma xamoon sama dépp xamal ma sama daqaar mi ngi nii. waaw te saa su baax. dëgg la kay saa su waaye kum. waaw ah. nag dafa am lu ma jaaxal. Hmm. ndax dafa am ay rumeur yu daw ci biir kër gi. rumeur hmm. am lu fi xew. rumeur bi daw ci kër gi de mooy. Hmm. dan ma fi jiiñ am ñaari jëkkër maanaam bigamie nee naan daal dama am jëkkër sa France teg ci ñëw senegal di sëyeeg bu lii daal lan may capp cappee ci biir kër gi. maa ko wax. ak man te yaa ko wax. dëgg neexul pëli nga jeegu ñay bii nga ko wax ak jeeg bu ndaw bi. day njaayee eh! yow da ngay yëbb di tuuru di sotteeku yow. comment dégg nga li ma la wax. kilifa gu laa rek la leen ko rek. yow man maa la wax lan. yaa ma ne kii dafa am jëkkër. France am jëkkër Sénégal day karole France di karole Sénégal yaa ko wax. baa xam nga ne dootoo ko defati. ah lu tax dootuma ko defati. yow dinaa la wan ne doo jeeg jegeet nga te boo demee massa samedi fekk fa sa bopp ñu lay wanteer nday njaay yow ci man ngay dugg di ma sosal waa léegi yow yaay kan ah xamoo yow yaa bi doo ci soble Amina ee eh, wax leen kii man maay kii kan la yow leen ko seen biir moo gën eh wax ma lan la yow nag may wax yow nga ne yow danga ciy dugg yow man dama laa xam yow fan laal jàkkaarloo yow na la Amina dafa am jëkkër France am jëkkër fii maa ngay appuyé Ndeye Ndiaye. yaa ko ma waxuma say wax ndax yow kër gi dëbb nga ko ba mu mokk jël nga ñëpp ibi boolu super daj leen ci ci man ngay teerale baa xam nga ne maa la gën a bandi aller retour man dama lay dóor ba nga tëdd lay setta la ba ba dootu la xoolati eh, xool ma fii dama lay ndell yow. Hmm? yow eh. wuy ma yow eh, laay waxal yow. Hmm? yow nga ne lan laa la wax yow. may ma eh, lan laa la wax yow. Hmm? li wax waaw. waa Kumba taxawal déglu ma ma expliqué la Kumba. fii dama fi sëy bul ma fi may riir tàmm nga koo joteel gis nga kii ay lañset lay doxantoo hmm? ay ràbb gis nga paaka cent franc yi boo ko vérifié woon léegi mi ngi si biir poche am. noonu nga defoon. ca naa kaso ñaari yoon. Amina wax na leen lool te xam lu ma fa yóbbu nit laa doon joteel ndell yaram bi ba mu ba ba kenn mënu ko xool. boo leen ma xamoon na doo leen dugg sama nit yow wëyu bay gajangeer gay xolit banaane bay xotti pot bi ko jot bërëng maa la gën a banti man ngeen di jaxaseeg sama cousine man kum wax ji na jeex sa yii moom arrêté ko ña sotti woon ndox ak di leen lañ sa teeg yooyu fii bu mu fi am fii dama fi nekk ak samay nawle te damay sëy li ma bëggoon mu leer leer na jeex na tàkk du dëgg ci ñoom lay leer yi seen dégg dama bëgg xam ndax yéen man maa jàkkaarloo yéen ne leen kii dafa am ñaari jëkkër wii ou yow mi yaa fi nettali ci kër gi ñëpp yow lañ ko xamee. man ko wala yow moom wër na Sénégal waaye ci man ngay teeralee yow. ñu dem Ndeye. leer leen yéen. kaay jël kër yi ngeen doon. mën nga ma bàyyi ma eh, defal leen bagage. Eh, dama bëgg nga noppi yow. dama ni nga noppi amoo loo wax. sanq ba tey yaa ngi rëpp rëpp xam nga sa nappaate yi ñii nga koy def waaye xam nga ne du jàll si ak man ndax xam naa la xam nga ma gis nga yow fenkat international nga yow Kumba. Amina man ngay wax ni yow fenkat bu mag nga luñ la waxal suba ba ngoon jot yow la maa ko def exprès taaj la fii ndax yow sa gémmiñ gi dafa rattax comme laa waaye boo ma taajee amoo ci ndam. man nga man aw ma ci ndam xam nga lan laa bëggoon seetal sama der te seetal naa ko te yow Kumba yàlla dafa def benn affaire Kumba maa la gën aller retour Kumba doo nit ku baax. kumba lu ma xam ci lu baax dugal la si ku ma xam ku baax boole la ak moom yow nga jël sa xol bi rek ne dee dooma ci dugal. gis naa yow li nga may fayee yow. dama nga sa affaire jalousie yi ba ni xale la ba tey lu ma xam dama bëgg lu ma rek maam xolal eh, su ma dee wax dangay noppi parce que yow da nga bëgg ñëwoon pour tas sama sëy te xolal duma la ko may. sa ñaari jéegi say daane de ñoo nar a tas sa kër yow de ku la bàyyi sa kër waxuma la tas sax mais yow yaay raw dege na ñii dinañ la dëbb ba nga mokk fii faalo ñu la respecté wu ñu la konté te loolu yaa ko liggéey yow may ñëw di la arrangé di la defaral nga man yaa taxaw tey di ma yëkkal yow Amina yow. Kumba déggoo li ma la wax mën nga maa may ma wax wala mënoo ma may ma wax man li ma bëggoon a leeral leer na naññ ndax gis nga ñaar ñii ñoo dàq wax ci kër gi ba nga toogee wax leen toogaat nga leer setalaat sama der te lool laa si jublu woon te xam nga lu ma la yégal que ça soit la dernière fois xam nga lii ba ngay xale ba tey danga ko tàmm lu ma am nga teg sa bët mais loolu day jeex du nee nga da nga jugoon pour tas sama sëy tuuti nga si tas sama sëy man ngay fenal naan man dama am ñaari jëkkër ñu may accusé de bigamie. dem eh déglu ma rek dama ne nga noppi. xam nga maa la gënoon a mën a interdire kër gi mais duma la ko interdire tey nga fii gën a mën a ñëw lépp loo fi fenoon lépp loo fi jaxase woon di nga ko defaraat ba mu baax yow Kumba yaa ma bett waaye ndokk yàlla nag ba ma sëyalee sama jëkkër ba keroog muy sàngoo suuf ma sëyal ko nag sëy bu baax eh mu defar testament am jël alalam yépp legee ma ko man ma la ciy dundal di ci dundal sa ndey kon yow yaakaaroon naa ne ñëpp waroon nan ma trahir ba mu des yow jàmm bi nga doon toxalal tey ngay gën a mën a ñëw ci kër gi lépp loo fenoon di nga ko defar. muy jéem pour moom toj na fi nii di yow jàllal faalew ma la sax yaa tëggoon yi taman tullee la ñaari boor. lii rek moo ci des lii rek sam ñu fekk ko. ci diggu kër gi muy fecc ci kanamu xale bu jigéen man man ma amatuma lenn lu may wax ak moom parce que jur la te doom la bëgguma ko jàll benn baat ñu ne dama ko manqué respect waxal ak moom. ok nga bu yàlla bu la nattoo danga koy tegoo te xam ne nattu yàlla moo ne sa kaw du dëgg sa baay bêtise bi mu def nii fecc bi ngay wax. lii ci gën a ndaw ñaata toj toj la def ci kër nga di ko muñ kon lii warulaa bett ci moom yow yaay souffrir en silence wax naa la ko nee naa la yaa moom muñ comme sa papa moom féetewoo na ñàkk doom ba pare mu ngi def lu ko neex yow yaay féetewoo muñ ngay bësanteeg sa xol di souffrir en silence bon yow yàlla dimbalee na la nga yor yaay ju baax jëla sa référence euh, nga teg ko ci sa yaay ngay xool ci sa yaay du dëgg loo war a def xalaat ci sa yaay moom comme moom magum jëmm la ba pare di présenté wu comme xale da nga koy bàyyi mu nekk ci li mu nekk ba keroog mu ciy jóge xanaa balaa moo dee dina soppeeku loolu laa jar ngay désolé eh. soppeeku moom soppeeku moom gëw ma sama papa war nañu de tout de tous les côté que ni moom mënul changer. comme xam nga ko dara du la bett ci moom comme xam nga ni moom du changer kon waru laa am waroo am surprise ci moom jàppal lu mu def rek mooy du changer mun nga def loolu wala mënoo koo def. Ah sama conseil nga doon laaj. jàppee ko comme booy bu ndaw. li lay xamal ni sa papa dafa irresponsable mooy ci vaccin yi vaccin wu Covid 19 bi. ba léegi laalu ko loolu nga yaakaar ne nit dina ko def. mais loolu bu defoon bu doon sam papa dafa bañ a dem vacciné wu rek ñu ne waaw mais yamu ci sama dafa tere jabaram yi sa excepté sama yaay sama yaay man sax maa wax ak moom heureusement moom jàng na xam yeneen jabar yi dafa def seen bopp que ni boo vacciné woo doo am doom da def na ci seen bopp que ni vaccin yi wóorul bu dee ndaw nga nga def ko sa sa sa fan gudd. te moom il est encore jeune loolu la wax de nee il encore jeune vaccin yi nga xamante ni nit ñi dimbali na leen torop torop ci maladie bi surtout si ñun ñu nekk en Afrique ravage yi Covid bi def sam papa mën a toog moom ni vacciné wul ba pare bëgg a forcer njabootam ñu vacciné wu loolu c'est a assassin qui le fait. sa papa moom sama yoon newu ci sama yoon newu ci sa papa mais dama ne sa tante yi maa leen di jiital ñun ñëpp añ leen sama oto yóbbu leen ñu dem vacciné wu. ñu leen yóbbu ñoom ñëpp ñu vacciné ñëpp ay vacciné wu ci. ah mais fenn nag ñoom ay jawru jàmbur lañ de. ba vaccination bi la moo ci yow jabru jàmbur. Ah, ñoom ñëpp di vacciné dama ne ñëpp xam na ni vaccin bi baax na wóor na pour da dafa baax sax nga def ko ngir ñi nga dëkkal bañ a am maladie bi wala ko nit ku mag ku ko xam te ni dafa am ay maladie ci yaram ak yooyu mais jël nit tamit force ko di mu dem vacciné wu loolu tamit waxuñu la ko de wala. force par force doole ba am naa leen yow. ok